ku dee ku weddi demal seetaan rek interview ba. Hmm. Euh, bi ko Sonko di wax. Sonko musul taxaw ne fa télé Sénégal télé France ak télé euh, affaire fii ak yooyu duñ ma buñ buñ ma bëggee def interview du ma ko def musu ko wax. Hmm. déedéet bi mu koy wax seppiwu ci télé yooyu. télé même télé même télé Sénégal. Hmm. même télé Sénégal su ma bëggee interview bi tama xam ni nga taxawee ci dossier bi du ko nangu. kon kay waxul télé tubaab kese. par principe la agir par principe mooy ñoom dañu ñëw. Mhm. nëbbutuwuñ woon ne dañ doon dañ doon jàppale Adji saar ak ànd ak état Sénégal di jàppale Adji Sarr nëbbutuwuñ ko woon Sonko lim man mooy mu taxaw mettit loolu manifester ko bañ génn ci loolu ñu nekk te jàpp naa ne loolu mu def quand même comme doonoon te nga am fulla noonu nga koy defee mais li Sénégalais yi déggul rek mhm. mooy def ni suko ki dematon ci internet bi ci inter interview bobu mu defone ak fajri la won mhm. ak wa ci gfm ak yoyu daf ne muy RFI muy France 24 muy Jeune Afrique muy. télé yoyu le monde ku fi ñëwaat may def sama sama conférence de presse bo fa ñëwee. Mhm. du ma wax ak yow. dan ne muy télé yi nek Sénégal tamit ku ci mën doon. Mhm. so jëlé position ci li ba ma xam sa position so ñëwatee fuma nek nekk ma wax ak yow kon kay lolou waxul ak tuba bi kasse mon kay kep kuko ko def ennemi di ko duma wax ak yow lolou la wax rek ah ñom nak ño xol ba gis ko ko def na local ñu gis resultat mu def législatif ñu gis resultat mu wote concert casserole ñu gis resultat ah ah la tax ñu ñewat nang ko wo parce que interview mom yow mi ñi seetaan buñ ñu yaakaaree da nga jékki-jékki rek ñew ma sol sama nga jékki ma rek tek ma fi di ma laaj demeewul non lan lañ waxante ma ak yow. Hmm? lan laa wax ak mbuub téléphonante lan lañ doon négocier ci suuf lan lañ waxtaanee ba nga ba ma ñëw nag toog. Mhm. Ah, loolu ki may seetaan xamu ko. Er, RF euh, France 24 RFI xam nga ñooñu nit ñi dañu xamu ne ñooñu duñu télé. France 24 RFI du télé loolu état France la. comprendre France la. Mhm. état France moo moom RFI moo moom France 24. mi ngi mel ne nga jàpp bëgg gis RTS jàppee ko télé bu lay informer nii rek. xam nga RTS du télé. Ah. Ah, du télé télé mag télé boo xam ne état ko moom état lay propagandal boo ko jàppee télé boo xam ne da koy seetaan nii rek ñu lay wax information jóg dem déedéet du télé de am leneen lu beneen leneen lu nekk ci seen ginnaaw loo xam ne ñoom loola la ñuy doxal. ci li nga RTS du télé. <laughs> télé kay da nga naan TFM ay Walfadjri seen TV mais. Euh, wala wala sunu gaal 24 des fois. non ñoom dañuy traité da fay gis. Euh, par exemple man ngaa gis barki démb Cheikh Omar Anne ñëw seen TV toog di waxi soxlaam jog dem ah El Malick Ndiaye ñëw toog loolooy télé. d'accord mais boo xam ne koo fa seen costume la sol état bi lay waxal loolu du télé. état France moo moo doon interviewé Ousmane Sonko mm. waaw loolu nga koy jàppee état France nag dañoo am ay njuumte yu ñu daan def ci Afrique mooy ñoom dañuy ñëw rek wéeru ci pouvoir bi. wéeru ci pouvoir bi wéeru ci pouvoir bi pouvoir bi du mës a daanu nag tant que ngi koy mën a contrôler danañ ko jàppale comme niñ ci jaaree ak njiit yu bari mais léegi nag Afrique dañuy jëkk-jëkk rek ci lu bette ñu xëy rek coup d'état am kii toog kooku xamoo fu mu jógee nit nag bu la xamul xëy la lay wooyee mm. loolu moo tax ay Assimi Goïta ay euh, capitaine Touré bi Burkina ñoom ñëpp faale wuñ France parce que lijjanti wuñu ko mm. France nag erreur yooyu mu doon def loolu moo tax képp ku mu yortu ne kii mu ngi xeeñ président rek dina jéem a xool naka lay def ak yow. donc interview bi dafa am lu muy annoncé ci sa xalaat. ah man de li ma jàpp mooy. Mhm. xam nañ ne sonk mi suba mën naa nekk président Sénégal donc nag kolaa collaborer ak moom danañ ko soxla mais euh, ñemeloo euh, seen entreprise yi fi nekk. pour ñu bañ a parce que dañu jëm ci état année année bu graw jëm ci tournir bu graw bo xamante euh tay interview bi lan lay jur moy businessman yi nek ci aduna bi ak ñi nek Sénégal ñom la waxal tay yow mi tok Sénégal yor sa entreprise France diko doxal nga xam entreprise français nga yor Macky Sall mi ngi jéxal Ousmane Sonko mi ngi ñëw nga gëm ne bu Sonko ñëwee dalay rendi dak la mais li état France def moy wax ak Ousmane Sonko mu ne man ci nekkuma ci conteste dak nit nekkuma ci contexte Russie laay àndal nekkuma ci contest France lay andal suma toge dina liggeyal Senegal fu intérêt Senegal nek dina ko def mais awuma ennemi ak France mais lolu tay ñi am entreprise France ñep ñi ñi amé fi ay entreprise ñom te wëru ci France mais ñoñu buñ xeyé dañ naw dañ dinañ xam ne léegi réew mi nekkatuñ fi bour mais nekkuñu fi baadoo la liggey mo leen fi bayyi suñu continuer te gis nga France amul intérêt wu Senegal di deltu gannaaw amul intérêt bi ñun ñoo japp ne France daf fi nekk pour bañ ñu avancer dedet France bu dee dugal xaalis FMI day dugal 100 nangam milliard jox ko jox ko état Sénégal rapport Cour de compte yi ñoom ñoo la ko gën a gis te ñoom ñoo tax ñi koy def xam nañ ni ñii dañuy sàcc xaalis bi mais loo bëgg ñuy jël état France andi ko fii ñuy xeex ak nguur gi duñ ko def dañ leen di seetaan rek ànd ak ñoom ci loolu parce que tamit nit loolu lañ mën mais bés bu ñu gisoon palu parce que tamit nit loolu lañ mën. mais bis bu ñu gisoon président boo xam dafa ñëwul taxaw temm pour suqali Sénégal bu boobaa nga xam ne France du noonu Sénégal parce que France lu mu néew néew bu Sénégal développé woon di nga am immigration bi dana wàññeeku. Mhm. intérêt yi ñu fi am bu réew mi gënee suqali ko muy gën a dox mais bu fekkee yii di fi nekk dañuy lekk xaalis ñoom loolu man mooy ànd ak ñoom rek parce que France mënul perte Sénégal mënu ko ñàkk. c'est ça nu Sénégal mel rek noonu lay àndeek moom. Mhm. alors ñu ñu ñu terminer ci ben dernier point Cheikh euh, Bara Ndiaye euh, muy euh, procès bi nga xam ne moo ñeel Sweet Beauté procureur bi daal dina joxe son avis pour que ñu yóbbu mbir mi ci tribunal bi maanaam ci procès waaye ñu ngi xaarandi jamono ji li nga xam ne décision doyen des juges. Euh, euh, japp nga ne non lieu bi nga xamné ñu bari ñu koy yaakaar dina am wala da nga japp ne peut-être euh, les signaux sont clairs pour que ñu dam ci procès. waaw xam nga procureur mom limu def mom loolu la mëna def mooy procureur depuis dossier bi dugg ci gendarmerie ci loxo procureur lay jaar. procureur mo koy indi ba andi ko jox ko juge décider ban ban ban cabinet lañ koy jox. Hmm. procureur bobu mënul ñew ba tay mune non damaa dama don wax lepp deug la day du deug euh damaa dama né yee loolu mom procureur mënu ko quatre ci dossier. Hmm. procureur euh du demandé nollie day demandé renvoi kon procureur ci lancé la nek so set lo sax sa bu ñuy atté nit parquet bi muy procureur day demandé né nañ ko tej 10 ans. hmm wala nañ ko tej 5 ans mom toujours day ñew song la. mais réquisitoire né voilà mais bu ki ñewé nu mu ti bu juge bi ñewé nak moy def ah ki kat comme ça ñoom Massata Samb. Mm-hmm. député yoyu lan la lan la procureur demandé won 2 ans 2 ans ki ñew def 6 mois. Mm-hmm. non la démé procureur mom ci procédure normale toujours mom renvoi lay demandé mm-hmm. légui nak juge bi nak mooy xool moom lan lay notifié euh, daal di mën a wax na man damay dem euh, renvoi su ko defee mën koo yóbbu mais man de li ma gëm ak li ma xam maanaam bokkuñu nag mooy seetlu yi ma seetlu hmm. mooy man damaa yàpp ni gaañ ñi dañoo bëgg a dem ci renvoi renvoi boo xam ne nag wax naa ko fan yële euh, Maham Diallo amuñu ci moom benn respect ñak respect ci moom mënta wessu nga parego, ci enquête pareego mhm. ñuy jënd ay caméras de surveillance di défar ay euh, barrière yo xamné électricité la pour préparer jugement Ousmane Sonko ak Adji Sarr kon donc ñom li jënti wuñ ma xam jàll enquête bi muy enquête mais xam nañ né ñom dañuy dem procès lool la seetlu moy mhm. limay gis projet tamit buñ fay dem Aja bi lan la moy Ousmane Sonko ndax dana bok ci du bok baña bok ci election yi waaw. xawma nak ban daan lañ bëgg daan ak lan lañ ko bëgg jaaré mais Ousmane Sonko mu bokk ci election yi japp na né timit ko xamné daf lay juger mu woor ke né yow no yee nga wara am mu lank nak du lako jox kooku japp na né bu ngeen démé ci kanam juge timit du taxaw mu né défo dara dégg nga lepp moy liñ commencé won émission bi ñak yoon ku ñak yoon ma xam jallo nak man de amoon naa ci am naa ci moom yaakaar du ma ne sax amoon naa ci ndax gisaguma lu tax ma naan aw ma te ma ko ci. Mm. waaye damaa xam ne moom bu fekkee moo mën a notifié di gëm-gëm lu ne ba léegi Ousmane Sonko dafa violé Adji Sarr. Mm. Hmm? ma xam Diallo ak ak ak parcours bi mu am kon ma xam ne li ci des ci dossier bi nekkatul lu justice di régler mais lu politique di régler la loolu laa gëm parce que boo demee par chambre ba chambre criminelle chambre mm. 1 la. chambre 2 chambre 3 procureur momu nga xam euh, taxawayam ci dossier bi kenn nëbbu ko buñu ko kenn wané nañ na ñom euh dañuy xex ak Ousmane Sonko dañuy politique lolu ñom mën nëbb parquet bi nëbbu ko mm-hmm. ta Ousmane Sonko rapporté sa na leen ko ba dina du wax ak ñom procureur momu mom moy décider ban chambre lañuy ñuy Ousmane Sonko wala non président tribunal bi président tribunal bi mom moo koy moo koy dem moo koy moo décider euh grande instance président euh, tribunal grande instance moo koy def mo nan chambre 1 wala chambre 2 wala chambre 3 hmm japp na né dee chambre 2 2 gis nga bis buñ né dañuy renvoyer Ousmane Sonko chambre 3 lay dem bis buñ ko doon renvoyé bindal lima la wax chambre 3 xam nga kan mo nek chambre trois mm. mooy ki ñom massa ta chambre ñaari député yi mm. ki len moo nekk foofu voilà yow nag yaay xool ba xam jugement boobu doy la wala doyul. D'accord. accord waaw jugement boobu ñu si Massatou Samba ki hmm. xoolal ba xam la wala doyu la. Kaliphone. Hmm. coup blessé involontaire lañ ko topi won. Hmm. mooy dóor jigéen ba gaañ ko. ñu gis dagg-dagg gis am certificat médical yu leer ak lépp. xam nga ñaata mois lañ ko tëj un mois. Massata Samb coup blessé involontaire lañ koy six mois. six mois léegi loolu lan mooy lan lan lan moo lan mooy lan moo indi lan moo indi différence bi voilà mhm. mooy peine boo xamante ne liñ bëgg mooy appliquer ko génnee ñooñu assemblée national kon donc ko man gëm naa ne bu renvoi doon am sax chambre 3 la jëm bu fekkee président tribunal bi tamit su ma juumul mhm. moo àtte woon ñoom Déthié Fall mhm. biñ leen jàppee ci le 27 bi jàll manifestation yi le 17 juin manifestation yooyu amoon tañ jàppoon ci Ahmed Aïdara ak ñoom di jàpp naa ne moo leen atte woon su fekkee moo leen atte woon su ma ci juumul ah ki leen atte woon fekk ku deful dara nga di ko tëj source kooku tamit ba tey ji man sama xel dalu ci